Galseni Pop Awards n'est pas une cérémonie qui peut démarrer la carrière d'un artiste. C'est pas une cérémonie qui peut mettre fin à la carrière d'un artiste. Mais c'est juste une cérémonie qui met de la valeur sur ce que fait les artistes. OK? Donc euh, avoir une liste de nominés et dire que vous faites partie de telle nomination, euh, de, de, de telle catégorie, vous faites rien que de faire partir des cinq, c'est déjà c'est un honneur. et c'est quelque chose boo xamante ne l'artiste va toujours s'en vanter c'est vrai ce qui est difficile au Sénégal nous n'avons pas d'industrie et nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures en tout cas qui peut faire de sorte que ces nominations peuvent avoir de la valeur aux yeux de certains artistes pas tout le monde nag aux yeux de certains artistes peut-être qu'ils euh, cherchent mieux mais euh, Point Blank Prod en tout cas on a fait le plus important maanaam mooy lal bu digg c'est-à-dire de prendre l'initiative d'organiser cette cérémonie et avoir l'habilité de rassembler tous les artistes. Je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes que Point Blanc a réussi. Et nous remercions encore tous les, euh, tous les artistes et toutes les personnes qui tournent autour de cet événement. Jusque-là, rien à dire. Et cette année, nous avons décidé de nous ouvrir à la sous-région africaine parce que tout simplement, On a eu euh, beaucoup d'artistes africains courant les éditions, euh, les éditions précédentes qui nous disaient tout le temps que voilà pourquoi vous n'essayez pas d'ouvrir cette cérémonie pour que nous aussi on puisse participer parce que bon c'est bien fait, ils regardent les cyphers, ils regardent les prestations, même s'ils ont des cérémonies euh, similaires chez eux, ils ont envie d'avoir ce que nous, nous sommes en train de faire ici. Donc euh, voilà pourquoi en 2017, si vous vous souvenez, on avait fait un cypher avec des pays africains. en tout cas de le Sénégal, pour ne pas dire mais que Galsen Hip Hop Awards décide la sous-région africaine et recevoir quatre catégories. C'était pour évaluer cela en fait. Et le vendredi, le 3 décembre, ce sera le et on va le faire dans l'enceinte de la 2STV malheureusement et ça c'est une information euh, qui nous plaît pas du tout mais vu des situations auxquelles euh, on ne peut pas faire face nous avons décidé de maintenir la cérémonie à huis clos dans l'enceinte de la 2STV et ce sera avec les nominés euh, les artistes qui sont dans les cyphers avec un bon nombre d'invités vraiment limités et pour que d'ici l'année prochaine qu'on puisse revenir avec de grandes salles c'est vrai que nous avons communiqué pour le grand théâtre. Mais bon, comme je dis, c'est juste que bon, voilà, des raisons que honnêtement nous ne pouvons pas vous expliquer, mais je sais qu'il y a une mesure de précaution par rapport au dernier décret qui vient de descendre. Le grand théâtre est en train d'hésiter, donc euh, mënuñu lu dul maintenir li nga xamante ne mooy huis clos bi mais comme j'ai toujours dit l'essentiel est que les choses se fassent donc euh, ces artistes africains là euh, y en a qui seront là y en a qui seront pas là pour des raisons yi nga xamante ne ils ont des emplois du temps chargés wala qu'ils ont calé des dates ailleurs mais ils ont des représentants bien sûr c'est-à-dire le chargé culturel de leur ambassade sera là pour les représenter et ça c'est le plus important voilà maintenant pour euh, pour euh, pour ce qui est euh, des des des des des des des des des critères ce que c'est des questions qui reviennent déjà chaque année. Je pense que cette année, nous avons pris en tout cas le temps avec le jury de revoir cela avec eux et ils ont pris une décision finale euh, pour, concernant les critères, en tout cas pour chaque catégorie. Et je pense que ça a été euh, publié, les visuels ont été publiés sur tous nos réseaux, euh, sur Facebook, Instagram et Twitter. gars yëpp gis nañ ko artistes yi gis nañ ko public bi gis nañ ko parce qu'on a vu que ça a suscité beaucoup de débats Et voilà, l'essentiel euh, est que nous avons communiqué là-dessus et que les artistes, ils se savent, ils se connaissent et ils connaissent l'enjeu, en tout cas de ce qui tourne autour euh, de, de, de, de cette organisation. Le plus important, c'est de retenir que nous sommes en train de faire des pas, nous sommes en train de tenir, euh, de tenir compte euh, de certaines choses dans le but de mieux organiser cette cérémonie pour le bien de tous. Voilà. donc euh, Sénégal la am na loo xamante ne mënul ñàkk mais encore une fois l' essentiel est que on se limite au important après euh, on laisse le reste euh, au vent quoi. donc juste pour un petit rappel hein, merci mm-hmm. des critères de de de, de comment de de sélection wala de de de donc comme les années précédentes bi am na am na si cinq pour cent. les animateurs aussi am nañ vingt cinq pour cent donc le jury à cinquante pour cent et le jury euh, décide qui c'est techniquement qui décide mais au-delà de ça aussi il y a euh, les critères et ñu le choix ñuy def moom mooy euh, euh, comment s'appelle l'artiste bi euh, niveau rotation radio bu mu am wala gars yi bi ñu ko dégloo qualité du produit les nombres de concerts qui qui que l'artiste a fait même si là c'est compliqué avec Covid mais bon on va essayer de garder ces critères là quoi Après, mécanisme de vote, je l'ai expliqué, euh, c'est online. Euh, les, les, les, les, fans, entre guillemets, ont voté. Et après, euh, on va recevoir aussi normalement votre, votre, votre, votre comment s'appelle, les, des animateurs. Et après, sur, en se basant sur ça, le jury, euh, on, se concerter, Inch'Allah, et ils vont euh, décider de la décision dans, la semaine. donc xamaguñu bu gagné bu ngeen laajte loolu quoi. waaw <laughs> hip hop bi ba mu njëkkee ñëw sax Sénégal. même góor ñi on a vu que dañoo amoon ay problème yow pour imposer wu parce que bon ñun xamuñu euh, gisuñu culture lañu ko am moo tax bu la gisee ngay yëngu si yenn yi dafay xaw a euh, jaaxal nit ñi donc góor ñi xeex nañ ko xeex nañ ko ba mu toll actuellement fu mu toll parce que léegi pratiquement lépp looy gis lu ñuy def dañ leen ciy boole parce que ñu ngi soog a xam importance bi mu am parce que voilà. Euh, excusez-moi donc je commence je disais que voilà lii hip hop bi euh, le fait que nekkul suñu culture dañ ko jëlee feneen dafa xawoon euh, dañu amoon jafe-jafe même góor ñi pour ñëw sax euh, dëggal seen bopp donc dund nañ lu nekk mais yàlla baax na actuellement suñu ñu toll nii wane nañ ni voilà quoi xeex nañ ba am ko et on s'est rendu compte que léegi même bu fekkee sax hip hop bi am na fi doole gis nañ ni côté jigéen ñi euh, comme ni mu ko amee si yeneen domaine yu bëri côté jigéen ñi euh, des na ba tey parce que on sent que ni am na si ñenn ñu si bëri euh, yenn problème sociaux yi poids social bi moo tax ba mënuñu si évoluer comme il faut donc c'est ñenn ñu si bëri sax dañuy naan dañ leen di bon dañ leen di léser un peu quoi ci ci ci seen liggéey. le fait que ñu ñu doon jigéen la parce que gis nañ ñenn ñu bëri ñi nga xamante ni ñooy woon ci mouvement bi xëy nañu bàyyi bon ku ci nekk am nga say raison mais gis nañ ni raison yooyu pour man valable pour ñu mun leen leen écarter et la preuve ren comme ni mu ko waxee euh, amuñu benn artiste jigéen bu ñu mun a boole ci ci compétition bi parce que compétition bi li muy laaj déjà rek nga am nga génnee dara Euh, pour mën a participer amul jigéen ñu ko am on s'est rendu compte que ni. Ah, am na révélation am na ah, non révélation mais jo boo xoolee catégorie yi am mm. importance yi yi gën a am importance euh, jigéen ñi génnewuñu déjà bëriwuñu te bu gis nañ ni bu affaire yi xawee compliqué si ñoom bu xawee jafe si ñoom pour ñu génnee dara dafay metti donc pour mën leen jàppale ñu mën a présent même bu ñu. bokkul ci yenn catégorie pour ñu mën a présent ci événement bi événement ñu ko def sans ñoom moo tax réservé nañu ci benn partie bu yaatu moo xamante ni ñoom ñoo ko moom ñoom lañ koy jagleel comme li waaye di wax am na ay ñenn ñu ñuy ñu ñuy euh, naka laa koy waxee sax ci ñu ñuy sargal am na ñenn ñoo xam te ni dina leen ci sargal et tout ça te dinañu seen présence daal bu ñu euh, siècle 3 incha allah dinañ gis ni ñun on a def nañ ci lu ñu mën pour ñu sentir leen ci bu baax a baax. ci liggéey bi et puis xam na xalaat nañ ni li ñuy def li leen bëgg defal dina leen gën a may euh, doole courage pour que année yi ñëw ñu mën a dellu si en force xam ni ñoom ci lañ bokk voilà même catégorie boo xoolee dañ ko dindi amatul góor amatul jigéen pour wane égalité carrément góor ak jigéen ñoom ñooy compétir pour meilleur artiste voilà parce que boo ko defee góor ak jigéen rek ah un moment donné dafay mel ni voilà tolloo wuñu ci milieu bi mais benn artiste de l'année moom mooy am léegi te voilà bu ko jigéen liggéeyee ba mun ko bu jëlee trophée moom ci kaw góor ñi ak ci kaw jigéen ñëpp moom mooy nekk artiste donc le des nag moom incha allah ci le 3 dinañ gis nag lu liñ leen liñ leen di sargalee ko incha allah le 3.